وضاحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokk jullit yi bokki taalibe yi waa daaira muqaddamatul xidma ñi ngi yëkkat suñu kàddu ci ndigalul Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak mu kàddu yu nuyoo ak kàddu yu cant ak i ngërëm jëmee ko ci mboolem waa daayira muqaddama xidma yëpp ci njiital nag al imaam Serigne Afia Bousso ak mboolem ñi mu seq liggéey bi yëpp tam topp ci ginnaawam sëriñ bi nee na mi ngi yëkkati kàddu yu cant ak i ngërëm. ak kàddu yi kañ ak bàkk leen ci seen liggéey bu rafet bii nii ko sëriñ Abdul Ahad Bousso lime léegi ku ko dégg dana dolli li sëriñ bi di wax dana dolli sama yaakaar dana dolli sama yaqin waaye ku dégg ni mu ko lime xam ne ay jàmbaar dëgg dëgg dëgg ngeen kon sëriñ Afe sëriñ Dieng mi ngi teg nuyoo bi ci sa loxo ak cant gi nga jàllal ko ci mboolem taalibe yi yëpp kàddu yi nga wax itam dégg nañ ko mooy ku fi ñëw rek yaa fi indi sa bopp te la la fi bàyyi yaa ko fi wax te fa siiw ne doon ay góor mooy la sëñ Mbàkke bu soo waxoon rek ñoo ko seetoon ba mu doy ñu suñ digg suñu suñ borom kon lu mu ñu wax dañ ko war a gëm kon suñu affaire ñu ngi leen di sant yaa mboolem ñu ngi ko seqal ñëpp nag. ci turu Cheikh mu Mountakha ci liggéey bu sell bu rafet bii nga xam ne jagleeg suñu boroom la waaye jagleeg mber mu leen Sëriñ Tuubaa beral la ndax fu ñuy liggéeyale Sëriñ Tuubaa kat fii mooy dàtt bi fii mooy xol bi fii mooy moteur bi kon nag bu leen suñu boroom dimbalee defal leen tawféex pàgguteefu suñu borom la waaye bëgg-bëggu Sëriñ Tuubaa ndax jumaa ji moom fu ne nit mën na faa jëf waaye am alal taxu fee mën a jëf bëgg fee jëfit taxu fee mën a jëf ndax lu fi dugg lu sell lay doon lu fiy dugg lu ne Sëriñ Tuubaa lu muy nongu lay doon moo tax ñëpp mënuñ am tawféex mën fa jëf kon nag ñi ngi soññ waa daayira bi ndax yéen kat ni ma ko daa waxee da ngeen jaay seenu bokk jaay seen lépp di liggéey sëñ Tuubaa te liggéey bii mi ngi bëgg a yàgg kon wóor na leen wóor na sëñ Tuubaa nangu na ko ndax fu nekkat des na fa dàkkook sëñ bi waaye fii moom kenn du fi am ren ba déwén te neexut sëñ bi kon ay jàmbaar dëgg ngeen te li li gën a yéeme ci yéen nag seenub liggéey yéeneen ko def nangeen ko war a defee te raxu leen ko jaru leen ko boolewu leen ci loolu ci bokkut tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi tàmbalee ci ki fi nekk sëriñ euh, sëriñ Touba yem ci moom lépp lu ngeen di def itam lu metti metti la sëriñ Touba waxoon ak Cheikh Ibrahima Faty ca kam ko boole loolu am ñag day day gën a ñagas la muy ñag léeg-léeg ngeen dégg lu metti te ndigalu suñ bee ko teg te du ngeen mën a onk du ngeen mën a jàmbat du ngeen mën a génn ci biti di wax kon nag loolu lépp nag na ngeen xam ne seen bopp ngeen koy defal kii nga kii ñu seqal liggéey bi tam ne ci ginnaaw mi ngi ci teg bëtam mi ngi leen di gis ndax waxoon na ko ba sama liggéey ba àggee ma leen di gis te du ngeen ma gis fa kon yéen ñi fi doon jëf yëpp ak daayira yi ànd ak yéen ci liggéey bi ñëpp nañ sant yàlla te am de xam ne ko doon màggal si te dàkkee fii Sëñ Tuubaa sa bëgg sa bëgg na la wóor jam nga kon nag yàlla ngeen ko yàgg def te suñ borom faj aaju yëpp lii sëñ bi wax itam yitte ju rëy la ndax yéen guddi bëccëg yéen a ngi sensé làmp yéen a ngi fóot yéen a ngi rafetal yéen a ngi lu ne yéen a ngi koy def bëggu leen laaj sëñ bi dara sax donte sëñ bi bëgg ko waaye nungu leen koo laaj lu ne rek yéen a koy jéemal seen bopp ngir xam ne ni mu waree ñëpp ne leen waree yéen a ngi ciy la sëñ Tuubaa leen ci defe ndam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 ci ñi nga xam ne suñu nawley diine lañ di suñuy bokki këri diine yi te ñoom ci seen jëm bopp ñooy wëlbatu ko di leen sant fu ñu di wax seen taxawaay di wax seen yitte di wax seenu nemm ko di wax seen yitte loolu nag ni ma ko waxee rek xam nañ ni seen bopp lañ ko defal kon nag ñi ngi leen di ñaanal ñoom itam liggéey bii ñu yàgg ànd ak ñoom te lépp di rafet waxtu ne muy gaa rafet ndax sellal lañ koy defee ak pëstéef ak ngëm-ngëm yàlla na Sëñ Tuubaa gàttandu leen ci yal na leen ci dimbale defal leen ci tawféex barkeel ko te mbooleem liñ bëgg lépp nag yal na suñ borom dal ko képp koo xam ne ànd na ko yéen itam yal na suñ Tuubaa faj ajoom te dana am sax ndax moo ko jige woon waq di xawaaija lasiina daa moom fii xidmati yi wahab lahum maaraama te baatoo xidmati duggaat na ci biir wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñaan gi nag jox naa ndigal Sëriñ Afe Buso na sànni ay ñaan ñun ñëpp ñu fas ci liggéey bi ñu doon liggéey Sëriñ Tuubaa yàlla na ko Sëriñ Tuubaa nangu kon na ñëpp tàllal ku yor bidon it man nga koo ubbi te te fas na ñëpp tàllal amin amin na ñëpp tàllal te fas amin amin الصباح في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر